mbokk jaa ngeen jëf salaamaaleykum yegg ak yéen ci penco ñu tàmbali waxtaan wi rek jox kàddu gi askan wi euh, wax sa xalaat la wax nag wax na rek li nga xam ne moom moo soxal réew mi Euh, bu dee am na ay jafe-jafe ci seen i gox ngeen wax ko bu dee gis ngeen loo xam ne ñongul ñu war ko ñongal ngeen yëkkate ko fi di rek ñaanati encore askan bi ñu yem foofu Abdou Thiam ñu tàmbale waxtaan wi bu dee am na kenn ku nekk ci ligne bi asalaamaaleykum. aleykum salaam wa rahmatullah. ñu lay ziar. El jërëjëf. man de tudd dëkk Kolda région département de Kolda. Hmm. di liggéey si askan bi di guddeeg bëccëg grâce à au rajo RFM ak d' autres rajo di jël sama alal di def lu ne si rajo yi pour défendre population pour xam na fii laa juddoo fii laa yaroo fii laa amee. Hmm. mooy loo xam ne lépp lu si manqué fii si Kolda dinaa ko jow ci rajo bi. Hmm. yàgg naa ko wax le pont Ilel fii Nour ba yow am na si témoignage ba yàlla dogal na pont bi defar nañ ko. Hmm. yoonu Jula Kolom bi 22 kilomètres xaw ma 42 kilomètres Kolda Jula Kolom. jooy naa ko ba ministère des infrastructures

boobu tamit def maa ñor trop ma département yi na wax man Kolda laa dëkk si Nouro hmm. man askan ku la du moomu ñor du leneen moomu ñor xaalis bi may def si serveur te RFM chaque jour matin xajoon na si njaboot gi hmm. mais mais réew boo si nekkee hmm. ku nekk dafa am koo xam ne foofu foofu nga war a jàpp pour réew mi dem kanam Macky Sall mënul nekk fépp mënul def lépp da am na loo xam ne ñun population ñun ñoo ko waral ma loo tam ma summeeku ma xeex bu dégg bëccëg di jàppale askan yi di jàppale sénégalais di jàppale réew mi pour uniquement grâce au radios PCR FM rajo boo xam ne lépp loo si wax askan ni ñu ngi lay déglu état bi mu ngi lay déglu laala si bàyyi ca xel hmm. man Sénégal moomu yow du demba du professeur du nangam du keneen keneen hmm. Macky Sall en tant que mu ngi fii man dinaa ko jàppale côté bi ma ne lépp loo xam ne dogul ci réew mi dinaa ko lu dox nag dinaa ko wax bu soobee nag yonent bi e man Kolda laa bokk intérêt hôpital régional Kolda bi ba Seydou Nour fii laa ko waxee ba kii ko gars yi ñu ne ma amul am na amul amul ba yàlla dogal ne ñëpp de actuellement te ñëpp teg nañ seen bët am na xam nga Sénégal man de dafa mm. yaatu te kii mm. laa la wax mm. ñun nag ñu ngi ñaan son excellence nañu gën a bàyyi xel Pouladou Pouladou Sénégal la bokk jërëjëf am na ñu war a dégg ñeneen jërëjëf merci beaucoup Abdou Thiam jël keneen ci bu dee am na keneen asalaamaaleykum waaleykum salaam lay ziar bi sëñ Nourou ñoo ngi leen di nuyu ñëpp ci jàmm alhamdulilah alhamdulilah bismillah Wa man day dama ñëw rek ci kaw mairie bi ak état central nekk na loo xam duñu duñu jëmee fenn loo xam ne la ci réew mi kon damay ñaan président de la république Macky Sall mu am auteur xam ni du n'importe qui yàlla suñu borom moo fal moo yore doole ji moo yore lépp maintenant bu fekkee Barthélemy Diaz dafa jël ñee te war jël itam tey jii bu naan mën a jël ay sanction day mel li xewoon rek ci comment de la donc bu fekkee ni li mu Macky Sall di wax sax dëgg la sax nit ñi man na man dama jàpp ne ah ci rek hmm. donc loolu du ñu avancé fenn dëkk hmm. bi am na yeneen priorité am na yeneen hmm. urgence nañ ñu dimbali ci dund gi nañ ñu dimbali ci gaz gi jigéen ñi sonn nañu ñu ngi yenu xottu butéel yi ay ngoor ba wakaam et cetera politique rek politique rek guddeeg bëccëg ñoo sonn guddeeg yàlla seen bopp sonn nañu te xoolal seen loolu saa bu ñu ko bëggee régler seen biir dañ koy régler ak mhm. maa ngi demander tous les sénégalais képp koo xam ni Sénégal moo la ñor na nga am mat mhm. mat gu day nekk ñii seen yi ñu nekk na nga leen ko bàyyee mhm. te yàlla suñu borom bi nga xam nag moo ñu boole ak ñoom. Mhm. yàlla nañ yàlla dolli sutura. amiin moo jërëjëf njiit daal day mhm. lay xaar yow da nga koy matale. Mhm. mais ñëw boo xoolee par exemple élection yu locale yi jëli nii barke Dembo Ndiaye. ab gis nit ñi def ñu ni jiital. parce que bu fekkee da ngay folli kii falke ki nga falaat léegi ñëw dellu fa kee nekkoon. mais le pays ne va s'arrêter jamais. wala sax mu yées ko. <laughs> mu yées ko di ko yées. dëgg la yàlla na yàlla dolli sutura. amiin jërëjëf merci beaucoup mu dem nag ki nga xam ne jël ko salaamaaleykum. rahmatulah wa rahmatulah. ñu ngi lay ziar. Alaaji Seyni Nour. waaw. maam Sini Diop maa lay woowee fii diwaanu Diop Saaw. ana waa Diop Saaw. waaw ñëpp a ngi fi sant yàlla baax. aywa bisimilah. maa ngi siyaare sama baay baay Yiri Diop moom daa bëgg Futurs Médias. ndeysaan jërëjëf. moom mi ngi mi ngi toog ci wetu bi daanaka yéen rek lay bëggee. maa ngi koy maa ngi koy ziar bu baax. yàlla xam ne mi ngi yor kaala gi toog wetu rajo bi di leen déglu moom daa bëgg rek. RFM ak Alaaji Assane ndeysaan. ne ko nay ñaan. waaw mi ngi ñaan ndeysaan. incha allah bisimilah. ñu ngi leen siyaare baax di nuyu habitant bi ne mm. ci matin bi. di leen siyaare ak baax a baax a baax. jërëjëf. di rafetlu liggéey groupe de médias. Mm. démb de boo xam ne daf maa neex trop yow Seydou mm-hmm. bi mu def suñu mbokk yi côté Diogo. ah, ah effectivement. mooy ñàkkub carburant bi. waaw ñàkk a bi. Mm-hmm. ak ñàkk engrais yi. donc ak ak ak ak zone des bi. waaw kay mooy mooy zone des Niayes bi. waaw rek ñun fi leen dëggee. waaw te ñun li wax rek ñun daanaka ñun ay baykat la 100 pour 100 bi ñun dañuy bay. Mm. léegi nag comme que engrais bi cher te mënutoo koo gis. li mhm. ngay xaw a tiit la xam nga gën a tiital. Mhm. Ah, ndax engrais rek nawet daraan maa ngi. Mhm. léegi nawet jotagul te fii laa waxoon ci rajo bi ni saako engrais trent cinq mille. démb nag ba reportage bi moo tax man tey il ma gën a duggaat pour wane ne ñun fi féetee ak ñaay bi. am nañ jafe-jafe Seydou Nour. parce que bay ba pare. mënoo jaay mbay mi. wala tamit comme li may waxee ci piste yi piste bi nekk kër Sini. ak bi nekk kër Galo. wax dëgg yàlla ñu ngi ciy tàllal loxo état bi comme réew ne mënuñoo bëgg a dëkk ci politique politique politique. Hmm. il faut ñu bàyyi xel ñi ne ci àll bi di bay hmm. il faut ñu bàyyi xel ñi ne ci àll bi di bay hmm. Seydou Nourou. ñu ngi leen sant di leen gërëm. jaajëfal ñëpp nag jërëjëf merci beaucoup yàlla baax na yendu jàmm Abdou Thiam am na keneen. ñu jël ko asalaamaaleykum allo asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. ñu ngi lay ziar ndax mun ngaa mun nga wàññi rajo bi tuuti. waaw. bisimilah kooku. waaw ah, man la Abdoulaye Dia. Abdoulaye Dia fay wootee. maa ngi Thiès dëkk bi laa dégg. ana waa dëkk ba. alhamdulilah Seydou Nour na mbaɗa aɗa selli jontan machallah seydi dia alhamdulillah seydu nouru minen de minen goyat tan hannde koko min goyatno hanki heccenki faade hannde aɗa wawi haalde joysuno deke mamlamin joyat ba tawi aha waw ɗum hmm. courant bi seydu nouru hmm. seydu nouru min sonnami de holo hmm. seydu nouru hola portable digital yalla hannde deux cent franc nga fof chargé waay portable simple bés bu ne bés bu ne nga chargé ko cent franc loolu weer bi la bu dee bu simple ci góor ci ko ci ko ci waaw ah, ci koor gi xam nga lu ñu lu ñu doon jënd baar galaas mhm. cinq cent franc di ngay bind waaw akbar ban dëkk la nga ne jégali wax naa wax si wax waaw maa koy fàttali ko justement mhm. wallahi man man maa la ko wax mhm. xam nga boobu ñu xaw ma émergence émergence ñun fan fan ñun jëm ñun Hmm, dana waar. ñàkkul ne soriwuñu courant bi soriwuñu parce que soriwuñu goudron bi dara. 5 hmm. kilomètres. kon doy na waar doy na waar. ñàkkul ne ñàkkul ne kilifa mu ngi koy dégg wala kilifa yi ñu ngi koy dégg na ñu def dara. jagali ca Thiès te am nañu kilifa ñu jóge ànd am hmm. bagaay. ndax Aly Ngouille Ndiaye xam nga mooy mooy mooy moo doon suñu ministre. sama njóobeen kaa ci daara la dëkk. ñun ñëpp ñun ñëpp ñoo ñoo ñoo war a. nañ def dara boog nañ def dara. ah wala ñi ma ne nañu gëstu bokk waaw nañu gëstu bopp sonn nañu ñàkkul ne aussi xam naa sax ñu ngi koy dégg ndax rajo moom daanaka ñëpp a koy déglu ñàkkul ne tam ñu ngi koy déglu ci askan bi la ñu bokk jërëjëf jërëjëf dëkk boo xamante ne bu mën moo ay ay trois mille ay quatre électeurs hmm. ba tey amul courant amul dara doy na waar doy na waar ndox bi nga xamante ndox mi fa nekk sax depuis Senghor depuis Senghor France nañu wéy nañu wéy di yaakaar yàlla baax na jërëjëf nañu wéy di yaakaar yàlla baax na jërëjëf merci beaucoup di nuyu waa dëkk bi Abdou tam na keneen ñu jël ko asalaamaaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakatu Seydou Nourou Ba waaw Serigne Mor Niang bu Mbacke Bari la waa Mbacke Bari waa commune rurale bu Thiamé Mbaye mun a mbay yëpp ñu ngi lay nuyu ak waa Koki. ma leen bu baax. waaw ah, ak waa Touba Mbacke tamit. jërëjëf sëñ Abdou Mbacke mu si bés baar. yal na ko fi yàlla yàggal ah, jërëjëf. bisimilah amiin amiin ah, sëñ Nooru. Hmm. bi ak santé bi amoon fii gis nga li xaw a fan yee paase Louga ba gis nga. ñaata woon laa ko kaas li si sa rajo. Mhm. ak suñ tali boobu. yàgg na. Mhm. maanaam kilifa yi da ngay wax ñu di la tànqamlu ba nit ñi deeñ door a ñëw. Mhm. gis nga ndaw si sox euh, soxnaam gaañu yàlla xam na ne intellectuel la rek dafa porter plainte. mais yaata bokk yoo xam ne ñoo gën a fés. ñoo gën a ëpp problème. ndaw si génn àdduna. ñàkk xam rek. waaw parce que région bi nii dara dara dara responsable yi dara lañ fi déglu depuis Djily Mbaye. tali yi Djily Mbaye la hôpital yi Djily Mbaye. ah. ba ci tali bi Abdou Diouf ko fi defaroon en 81 vingt un bi mu bu mu bu ko bu mu bu ko Senghor joxee réew hmm. donc nun ay jafé jafe rek li ñuy dund muy santé muy nit ñi lekk fi mu toll xiif bi dama dégg ñu wax ay matam raison de Louga bi ak dëkku Serigne Touba bi ci nga gis muy Touba Mbacke gi moo gën a ci Sénégal hmm. parce que nit ñi dañoo tuxu ci Touba Seydou Nourou hmm. ku daan bay bayatoo defatoo dara nga ñëw tuxu ci Touba Touba population bi dafa yokku te usine amu fi dara amu dara sëriñ bi yëg na ko ba ñetti fan yoo xam ne da koy jagleel taalibe yi dañuy xëy suba ñëw di leen jox ba ba midi ba ngoone bu jëlee tuuti pare di joxe ba ba muy tëdd. Mhm. loolu sëriñ Nourou Ba loolu doo ma tudd. loolu du xiif. Hmm? loolu du famille famille mooy lan famille wala ba ñu ko tekk ci wala waaw nañ ko ñu rafetal ñeen rek insécurité alimentaire ñàkku kaaraange ci a ñëw man moo bi ak action sociale la nekk hmm. laaj naa ko fii ci rajo bi ba sonn Assane Gueye ñoom kenn tontu ma ci hmm. ministre bi de action sociale fan la nekk Seydou Nourou Gueye ah beneen bi jëf assainissement bi gis nga nawet baa ngi nii di dugg si waxoon naa la ko fii gis nga Pikine googu ngay wax noonu ba ba nga egg fële nu mu Euh, euh, Pikine. Hmm. yëmbal. Hmm. ba ba ngay egg cité am 3 ba fa président Macky Sall demoon. Hmm. Euh, Kër masaar yaa ngi koy fàttaliku. jaxaay un ak deux bu baax. gi ñëw naan ci Cheikh Ahmad Bamba deux semaines ngi ni jaar naa fa ndox maa nga fa ba léegi. ba tey. borom kër bare bare seen kër yi mu toll dañoo mënut a tuxoo parce que yow. jërë famille bu mag ba pare. bëgg ñu génne la fan la foo foo wax nga wax nga li am solo président jógal président jógal wax nga li am solo jërëjëf mu gën a gàtt tuuti rek. ndax ñu war a wax aussi dañoo bëri Abdou Thiam am na keneen asalaamaaleykum. asalaamaaleykum. ñu ngi lay ziar. waaw président des jeunes marchands débrouillards. Seydou Nourou. waaw tey le président fi nga nekkee suus de fan nga nekkee nii. yaa ngi may yaa ngi may dégg nii maa ngi may jaay yaa ngi may dégg nii. waaw. ma ne président Macky Sall laay waxal. dégg-dégg neexul de dama xamul nag ndax fi nga nekk dafa xaw a fermé wala. yaa ngi yaa ngi may dégg nii. voilà gënal tuuti gënal tuuti dafa des day suus. suus ma nii. xaaral nga am rajo allo. na woote na dafa xaw a dese leer ñu jël keneen Abdou bu dee am na asalaamaaleykum. waaleykum salaam. mu ngi lay ziar. di Nourou. waaw. ziare naa la. kooku. Medina ah ça bien Seynou. maa ngi lay ziar mhm. bu baax a baax. di baalu naa la baal maax yan ñaar boole baal. waaw di fi ci média a baax. jërëjëf jërëjëf euh, xaw na des de xaw ma ci moom la xaw ma fi euh, allo. yaa ma dégg waaw. waaw xaaral Mbengue Mbacke wala mooy woote. ah. man a Xaadim Mbeng Mbàkke Bawol Xaadim Mbàkke Mbeng Mbàkke Bawol maa ngi la ziar waaw ñun nag li li ñu jàmbati département bi hmm. mooy comme yeneen askan wi euh, muy parti bi nga xam ne mooy taxawu seede taxawu Dakar hmm. ni ñu jëlee seen euh, investir hmm. ko si yoon man Xaadim Mbeng mi mun maa nekk ci Mbàkke ñuy investir ay nit ñoo xam ne li ñu def dëgguñ si yoon man li ma waxoon rek su ma nekk waaye mënuñoo jël man sama dossier téye yóbbuwuñ ko kon nag kon ñi ko yóbbuwul ma ci département bi la wala ña sa kaw. Hmm. woo naa nag Khalifa Sall interpellé ko woo ñi nga xam ne ñoo fi nekk ñëpp waxuñu lenn léegi nag des na si kanam tuuti. dafa mel ni dégg-dégg bi dafa xaw a des ba tey ñu jël keneen bu dee am na Abdou Thiam asalaamaaleykum. waaleykum salaam. ñu ngi lay ziar sëñ bi. Seydou Nourou Ba. ah. Gana Gueye dëkk ba. ñu ngi sant bu baax. Seydou bisimilah. Ngane Gueye maa ngi nekk si commune de Fandène. Ah, commune de Fandène. commune de Fandène waaw. bisimilah. waaw avant tout damay remercier El Hadj Assane Gueye. Mhm. mu def lu baax a baax a baax ci koor gi. Mhm. indi tubaab peeku ceeb ak suukar. Mhm, macha allah jàppale ko fi néew ci doole yi ngir ñu doge ko seen koor. kon yàlla yàlla fay ko. amiin amiin amiin. yàlla yàlla fay ko yiw. amiin amiin lépp lu mu ci séentu ci lu baax. yàlla na ko yàlla tasaare ci njaboot bi tasaare ko ci biir réew mi. amiin amiin amiin. bon leneen li may wax ci li ñu doon wax ci mairie Dakar. Mm-hmm. xam nga bu fekkente ni euh, ñooñu nga xamante ni ñooñu lañ fa jël. Mm-hmm. bon bu ku mel ni Guy Marius Sagna. Mm-hmm. ku ne dégg na ko ci lu bari ci biir réew mi. kon xam nga ni mi ngi ci coow li. ku mel ni euh, capitaine xaw ma colonel gendarmerie gendarmerie boobu ñu doon wax. xam ko ku ne xam na coow coow moom it topp na ko. parce que moom li li li ko waroon tey muy jéggul waa Sénégal parce que armée. wàllu secret la. doy caaxaan. Hmm. dafa ànd ak secret d'état. Hmm. su fekkee yow tu es gendarme. Hmm. am na loo nga. am na loo xam ne même bu la ko yoon def loo sax nga retiré wu. bañ ko def sax moo gën nga jëlee dévaliser ay secret. bari na lu waaye bu ci penc moo romb gis sa jàmm. waaye dafaa xam lu mu mais la mu xam bu ko waxee penc ma toj. kon ñoom ñaar bu leen jëlee Barthélémy Dias yóbbu leen ci maire Dakar la leen jël comme ñoom senegal ñoom rek ñoo fi conseiller boo xamante ni war na leen mën a indi te du am coow. kon kooku da leen def pour contrecarrer président Macky Sall dañu waxante li am te président Macky Sall yilif ko yilif maire bi bu ko nekkoon tey maire yëpp tey mu tax leen parce que am na doole parce que sénégalais ñoo ko fal. ñu koy doxal ñun suñu réew mu am ay pàcc yu ñu ci jël jël ko njaboot bi hmm. kon bu fekkee dafa jël ab pàcc jël ko ci biir jërëjëf jërëjëf jërëjëf merci merci beaucoup jërëjëf jërëjëf Abdou Thiam ñu jël keneen bu dee am na keneen ku nekkat ci ligne bi ñu jël ko asalaamaaleykum maaleykum salaam ñu ngi lay ziar sëñ bi Seydou ma lay ziar sa séeréer bi waaw ñu ngi koy alors ndax sama séeréer bi est-ce mu ngi gunge weer wi juróom-benn fan yaa ngi koy gunge weer wi séeréer bi. waaw maa ngi koy gunge eh, tey damaa damaa damaa damaa xarmat sax. Abdou Thiam may ñu Abdou may ñu séeréer duñ gunge weer bisimilah. bokk baag Abdou Thiam bokk baag Abdou Thiam moom mooy caabeen boo xaye yaa ma gën a baax na bisimilah. ñu ngi leen di baalu ak ci weer bi yéen waa RFM bu baax a baax ci politique bi ñu leen di baalu bu baax a baax wax dëgg fa yàlla yéen a ngi def liggéey bu am solo jërëjëf jërëjëf parce que tamit tam ñu am lu ñu metti ngeen pexe ba ñu dugg di ko wax loolu am solo la jërëjëf ñoo ko bokk il faut ngeen defal ma benn émission boo xam ne maa koy xel di animé muy c'est pas normal comme lu jaaduwul rek nit wax ko loolu am solo ah, loolu mooy loolu après ñu waxtaan mais fexe def émission bu mel noonu ah. yàlla baax na waaw loolu jaaduwul daal la émission bi di hmm. c'est pas normal gaay gaay gaay ko sàcc de gaay ko jël léegi yóbbu ko waaw <laughs> kon boog daa ko ci suuf da nga war wax ci suuf waaw <laughs> bisimilah. waaw kon daa ko wax ci suuf. <laughs> bisimilah. waaw bu loolu paasee ba ñëw ci dëkki kaw yi rek. ko hmm. man moom kuy njóogu laa dëkk. Hmm. Euh, dafa am loo xam ne nii ñun mënuñu ko. Hmm. muy kaw kaw yi. muy talal loxo wala ñaan. te comme mënuñu talal loxo wala ay ñaan ak ay taalipanu ak ay manifeste fii dafa am loo xam ne dañu cee war a dimbali. muy loo xam ne waxul ñu pour ñu may ñu wala ñu lebal ñu. Mm-hmm. mais bu ñu joxee jiw woo xam ne nii mën na noo ji am suñu engrais mën a ji suñu tool yi bu baax di ci bay di ci dunde kenn du dëkk kaw kaw yi. Mm-hmm. mais nag euh, buñ ñu seetaanee nii aussi dañuy dem booy def loo xam ne nii vraiment mënuñu ko. Mm-hmm. muy talal loxo kaw kaw mënul talal loxo kon nag euh, nawet baa jub si. nañ ñu dimbali ci ay jiw muy gerte di dugub di mboq. ba pare ñu jox ñu engrais. comme ñu ngi fay suñuy lempo bokk mm. ci dëkk bi mm. nan ñu dimbali ci loolu parce que tamit tam euh, dañuy am ay ONG yu ñëw tabaxal ñuy ecole defaral ñuy forage yu demee noonu mais day dem ba paan mm. wala école yi du am miir duñ ko eggali mais doo gis sax autorité boo xam ne ñëw na pour miireel la wala mu defaral sa forage bi comme ni may jooytoo suñ forage mu ngi am dix ans boobu ba léegi kenn laalu ci kenn defu ci dara. mu ngoog euh, te mu te mu yor dëkk te mu yor fanweeri dëkk ak ñaar wala juróom fukki dëkk. Hmm. Euh, xam nga loolu day xaw a demee. day doy waar lay sant di la gërëm nañ gàttal ñu ngi lay sant. jërëjëf Abdou merci beaucoup jërëjëf jërëjëf bu gàttee dina baax loolu asalaamaaleykum. Seydou Nour. waaw. Ousmane Dem Porosanti Gabon. ñu ngi lay ziar. alhamdulilah. bisimilah. waa Mbumba waa Madina ñu lay ziar bu baax. <laughs> maa ngi delloo ziar bu baax ak waa mairie. <laughs> waa. <laughs> bisimilah. ma ne sénégalais yi xam naa man man li ma jaaxal mooy. Hmm. amuñu courage taxaw si rajo yi wala tele yi wax dëkk bi. Hmm. ñëpp xam nañ Barthélémy Dias nu mu nu mu nu mu jëlee kii Mari Sagna ak capitaine Touré du yoon. Hmm. ñëpp xam nit ñuy jàngul se xam ne du yoon. nit ñi jàngul dara ci français xam nañ lii di yoon. am na loo xam ne nit bu ko defee da ngay xam ne carrément lii du yoon man li ma jaaxal mooy ancien journaliste yi ñu doon mel ci rajo yi tey loolu man loolu laa gisatul man. ñëpp ragal ñëpp tiit. déedéet du ñëpp ragal de du Sénégal du baax. ah euh, dem du ñëpp du ñëpp ragal du ñëpp tiit déedéet loolu mënu ma ko nangul moom. ñëpp déedéet waaw boo ko nanguwul man sama xalaat laay wax. waaw mais mais loolu amul. man nu ma doon gisee bu njëkk ba. ma ne du ñëpp ragal du ñëpp tiit non non non non loolu moom Ousmane euh, Deme duma la ko na duma la ko ubbi sa micro ñu ci gën a bëri du ñëpp. déedéet <laughs> sa waay waaw laa loolu ngay wax dafa non am na ci ñoo xam ne waaw loolu ngay wax mais du ñëpp du ñëpp de ñëpp ragal ñu de ñëpp laa voilà ci wax dëgg dañoo tiit dañoo ragal asalaamaaleykum waaleykum salaam loolu moom sa say say say kàddu la rek waaye du ñëpp ragal moom du ñëpp loolu moom amul moom waaleykum salaam salaamaaleykum ñu la ziar bi waaw bismillah sëñ bi waaw ah, sëñ Nourou. ñu ngi lay ziar baax naka tey. maa ngi lay delloo ziar bu baax kooku. Moussa Diop lañ koy wax. Moussa Diop. Moussa Diop maa ngi woote fii Dakar Yoff. Dakar Yoff ana waa Yoff. ñu ngi sant bu baax kay. bisimilah. waaye ah, nag ah, tey damaa jóg ngir wax ci zone de mm-hmm. bi. maa ngi dëkk dëkk bu ñuy wax Saara Daawa. Mm-hmm. Saara Daawa waaye sëñ Nourou de yéen war ngeen def benn jour. Mm-hmm. ngeen wàcc ci zone de Niayes bi gëstu jafe-jafe yi béykat yi di dund. pourtant nag war nañu ko démb de fii rek dèjà démb Cheikh Anta Diop. mais dafa dafa dafa dafa des lu bëree bëri waaw ñu koy wax de. dafa dafa des lu bëree bëri ndaxte hmm. booy xool li ñuy dëj ci tool yi pour pour béy ko. Hmm. métti na trop ba noppi bu ñoree pour nga hmm. jaay ko problème la. am na ko ko wax léegi léegi damaa xam ndax baa nga ci xel. waaw waaw xam naa bàyyi ma ci xel na maa téléphone bi am na ku duggoon yaakaar naa moo nekkoon troisième intervenant loolu la wax da ngay béy ba sonn sax doo xam foo koo jaayee voilà léegi léegi nag li ko li ko waral laa bëgg expliqué ne parce que bàyyi borom alal li hmm. mu toll ni ñooy bay bay lu bare bare loo xamante ni baykat bu ndaw bi mënut a def ak ñoom hmm. te loolu nag pour pour pour baykat bu ndaw mënti génn faaw état bi jog taxaw organiser bay bi maanaam ñi nga xamante ne dañuy bay lu bari mu ne leen kat bu ngeen bay pare taxaw leen ba pare ngeen am nañ suñ mm. mm-hmm. mm, ñu may baykat yu ndaw yi nga xamante ne dañuy mm-hmm. ko jóg ba bay ñu mm-hmm. ñoom ñu bay bu ko defee ñu la denc a denc bu mm. jeexee ñu la continuer ñu la continuer ah, ko organiser mën nañoo dem ba Sénégal yor boppam ci mbirum soble te kenn du sonal kenn waaw da da ngay imaginer borom kër goo xamante ne day leb di ba tool bi ñor te du jaay mukk tool waaw tool bi rek la yaakaar pour man a fay dundal mm. njabootam. Mm-hmm. mu pare soble bi di yàqu di nëb bët yi doo xam nooy def. loolu métti na loolu métti na. ah loolu métti na trop vraiment xam naa daal. waaw yàlla baax na état bi daal war na war nañoo gën a gestu daal gën ñoo bàyyi xel bu baax baax. na dund yaakaar yàlla baax na. waaw waaw nañ ci a bu baax waay. jërëjëf di nuyu waa Yoff yëpp sëñ bi jaajëf. incha allah jërëjëf sëñ bi kontaan nañu bu baax jaajëf maa gën a kontaan Abdou Thiam na keneen asalaamaaleykum jël ko. maaleykum salaam. naa leen bu baax. waaw kooku

Mhm. ndax foofu laa passé événement bi muy korite gi mhm. waaye comme ñun bu ñu nekkee ay lanceur d'alerte wala ñu nekk ay porteur de voix lépp loo xamante ni gis nañ ko rek mhm. euh, dañ koy indi ci instance yu mel ni RFM bu ko defee kilifa yu man cee man cee man cee en compte parce que li ñuy wax biir maanaam période bi ñu toll da luñu ci mosaan toll état bi dafay génne ay ndimbal bu jàppalee ko dëkk yi nga xamante ni li ñu béyoon dafa sàqee dafa jeex ren nag constat bi ñu def ci Kajoor mooy boo jëlee commune bu mel ne Dakar tul nga juuf ba jàpp ci ndànd lu bëree bëri ñoom amuñu nawet ren. Mhm. kon jàpp naa ni 43 euh, milliards yi nga xamante ni président Macky Sall daf ko fas yéene jàppale Sénégal yi euh, ragal naa ni euh, étude que mhm. envoyé yëpp yaakaar naa foofu lañ ko war a gën a joxe. Mhm. parce que kenn ku ne xam ne Seydou Nourou baykat ñeenti lay bay dund ko ci juróom-ñeenti weer. bu yàlla dogalee nag ñetti weer yi nga béy ñoruloo dara kooku jàpp naa ni ku jara ku jara ku jara ku jara taxaw la ku jara mm-hmm. dimbali la mm-hmm. kon maa ngi bàyyi loo xel bu baax a baax njiit réew mi ci yéen bu bi mm-hmm. am na ko pour war ko lancer le 10 bi maa ko koy fàtte ndax jaar naa ci démb euh, mais yàpp naa ni yoon bi wax dëgg yàlla yàqu gi foo ko takk rek wees na kon ñu ngi ñaan entrepreneur bi nga xamante ni moo war liggéey bi mu gën a gën a liggéey Hmm. comme fi fi nga fi nga fi nga waxee rek foofu laa daanee léegi hmm. mooy ñi ñu gën a rafetal kàddu yi ndax hmm. jàpp waa Touba a la nga bëgg moom ah lekk may la yàlla am nañu ko war a wax wax yàlla mën nga ne peut-être dund gi métti na waaw jërëjëf merci beaucoup ñu jël keneen Yacine Pouy moo nekk ci digital bi ñu jël keneen waaleykum salaam ñu ngi leen nuyu bu baax département Malem Hodar. man waa Malem Hodar. allo waaw maa ngi dégg bu baax mën nga yëkkati tuuti kàddu gi rek. manque de tout foofu la ñuy wootee de. ah manque de tout. maanaam dara amu fa. ba léegi daal. amuñu tali. ah mètre goudron amuñu ko. ah 1960 ba léegi. Hmm, loolu moom métti na dem ci 1960 ba léegi wér yaram yaram 400 villages yoo xam ne mënuñu am li dafa ne ci ay case de santé matul 10. 400 hmm. villages. non c'est pas normal. 1960 ba léegi école. lu mat vingt pour cent amu fa. mille ba léegi Malem Hodar amul hôpital bu mag bu baax. mille ba léegi. ndox mi noonu la. ay forage quatre villages et quelques dafa nekk ci ay ville forage matul dix. mille ba léegi. école yi dix pour cent matu ko. maanaam dara doxu fa. daara doxu fa Malem Hodar manque de tout. Malem Hodar manque de tout donc moo Hodar manque de tout. dégg nga awla ah, oh la mu ñu dakk dégg ngeen ah, mais nag wax wax na aussi am solo bu ne Malem Hodar manque de tout mooy duñ ñee du ñee toq amu fa waaye daal li des moo gën a bëri Abdou Thiam asalaamaaleykum jël keneen. jël ko ñu ngi leen ziar. Seydou. waaw. Ousmane la moo daggoon sànq. waaw wax nga dëgg dafa daggoon wax nga dëgg bisimilah. Euh, Seydou ñun tey wax xalaat dañu ñëwaat si suñu village Medina Bamgol. Mhm. Euh, ñaari problème lañ am Seydou. Mhm. benn bi mooy réseau téléphonique. Mhm. sànq wane na ko ndaxte boo duggee boo nee nii rek day daal di dem yoonam. loolu nañu si jàppale waa orange ak waa fii rek képp si mën jàpp te mu nekk si di yëngu si wàllu réseau téléphonique. nañ jàpp ne village bu tudd Medina Bamgol nekk si commune bu Affé Djolof département bu Linguère. yoo nañ ba sonn si problème réseau téléphone. Mhm. ndaxte fii pour woote fii day jafe trop trop trop Seydi. Mhm. wala jot si appel day jafe trop. Mhm. lu ne ngay daj pour woote. beneen bi mooy si wàllu TNT bi démb maa ngi dégg kenn ku dalal loon RFM matin. mu siy wax. fii département bu Linguère suñu ko fii. ñun signal bi amu fi doole dara. da ngay mm. da ngay toog sa kanamu télé di seetaan benn affaire bu la intéressé. Mm. jékki-jékki signal bi ne mes. Mm. da ngay toog di xaar ay dix minutes ay ay cinq minutes mu soog a ñëwaat. jékki-jékki demaat. xam nga loolu taxul ñuy wax pour pour télé. bu fekkee yow da ngay li ngay seetaan day dem di dagg di ñëwaat te leer na li koy dagg. neexul jóge si signal bi. war góor góorgóorlu côté boobu baax a baax surtout ci département bu Linguère bi Seydou mm, jërëjëf ñu ngi lay gërëm bu baax a baax fekka mm. Sangalkam sa auditeur la mu ngi lay ziar bu baax maa ngi ko maa ngi ko delloo ziar bu baax di nuyu waa Sangalkam yëpp di nuyu waa Medina Bamgoul yëpp Abdou bu dee am na keneen ñu jël ko asalaamaaleykum waaleykum salaam waaw de man de député yi mm. laay waxal par exemple dañ dañuy laaj laajte askanu maanaa baatu askan wi pour toogal askan wi ca réew ma ca assemblée nañu xam ne daara yi ci réew mi la ñu bokk yor seen problème ñu bokk nag ci ñu développé réew mi parce que daara ji daa daara ji moo yor réew mi daal moo barke réew mi kon nag képp kuy député moo xam ñoom Thierno Bocoum moo xam ñoom Abdourahmane Diouf moo xam ADS moo xam ku mu mën a doon waxal rek bu tudd ay tur waxal rek waaw baax na bismillah maanaam nañ toppatoo daara yi hmm. am projet yoo xamante ne bi ñu ngi foofu ci assemblée nationale hmm. baaxul ci réew mi ci daara ji baaxul ci njiitu réew mi ñoom gisal nañ ko seen bopp mhm. beneen bi ñu def soxna Marème Faye Sall ma di ko ñaanal yàlla di ko wax ne bu bëggee ndam ndamu jëkkëram am na ñu nekk ca àll ba gis nga bu leen joxee fukki kilo ceeb dinañ ko gis bu leen joxee liitaru diw dinañ ko gis kon nag lii muy baatare ci Dakar di ko jox feneen baax na de waaye na dem ca àll ba ñëw ci daara miskin yi am nañu yor ay daara yoo xamante ne bi ay million la ñuy récolté. jërëjëf jërëjëf mën nañoo dem bitim réew. mën nañoo dem fu ne. jërëjëf merci waaye daara yii bu dee am na keneen ku nekkaat ci ligne bi ñu jël ko asalaamaaleykum. allo allo waaw ñu ngi lay ziar. allo salaamaaleykum. waaleykum salaam. man maa ngi oote Tëngéej. ana waa Tëngéej. Tëngéej ñu ngi si jàmm. alhamdulilah. man nag oote ma pour kenn damay oote pour nit ñi jigéen ñi si kër yi. Mhm. suñu jëkkër yi gaañu ñun sonn nañ. Mhm. ndax suñu doom yi soxlawuñu xaalis soxlawuñu dara mais ku ñu yaral suñu doom yi mhm. ndax xale yi dañuy nekk si mbedd mi di taxawaalu mhm. amoo loo leen dugalee école mhm. amoo ku la jàppale waa ah, loolu doy na waar nañ jàppale si xale yi fan fan la ci tëngéej ban quartier la ban quartier la man fii laa dëkk tëngéej ban ah d'accord alo allo waaw maa ngi lay am na solo maanaam seen doom yi amoon leen moyen pour ñu dem ca daara ja wala ca l'école ba ñu ngi ci mbedd yi rek dara loolu de baaxul xale yi tuuti douze ans treize ans xale day jàng ndax bu yàggee mën naa mujjee feneen gis nga gis nga amoo ku la jàppale est-ce que est-ce que dem ngeen seet seen maire bi pour euh, waxtaan ak moom waa da dem mais xam nga hmm. affaire bi foog nga am koo xam te xam nga jigéen laa ci kër di liggéey maa ngi ni di nekk sax hmm. xam nga hmm. pour li ñuy wax ci rajo yi c'est ëpp importance. li ma lay wax ba ndax ba amul benn dara boo xam ne mën ngeen fa yóbbu sax xale amul. man amul ñàkkul daara ci koñ bi ñàkkul daara ci koñ bi. daara ci koñ boo yóbboo daara sa doom da nga koy fayal. waaw mais xam na daara aussi ñoo xaw a tane ñoo xaw a tane parce que ñoom yàlla rek tax a xale yi sëriñ yi métti wuñu école bi fu mu nekkee ne école publique la. waaw wante xale yi bu fekkee xale boo xam ne nanguwul jàng nag. pour hmm. cas boobu laa bëgg ñu gën see taxaw. Ah, xale yu nga a nekk ay. délinquant foofu nag c'est compliqué foofu nag c'est compliqué bu dee kër bu dee kër amul góor buy yar. jigéen rek fa nekk day nekk xëy liggéey. kër yi ah. kenn du nekk ñun ñu jigéen ñoo fiy ne. te xale yi mënaluñ leen dara. waaw yóbbu leen ca daara ja nag ñun noddante leen foofu yóbbu leen ca daara ya ci biir koñ yi bu leen bàyyi ci mbedd yi de. maa maa ngi bu baax. waaw maa leen dégg bu baax a baax. Euh, yaay booy dama ne. boo amul mooy yóbbu sa doom école yóbbu ko ca daara ba. naam da nga ko da war a fay bu dëgër bopp la. bu fa demee xam bu fa demee coccu lay def. daara bu fa demee soo ko yóbboo mu daw ñëw. loo si mën état bi moo war a taxaw dimbali ñu. waaw loolu ci la na état bi taxaw tamit na état mais en attendant tamit foo xool leen au moins foo leen dugal. laata laata béy du man gis nekk de. Mm-hmm. jéem naa lu nekk ndax man yàlla dafa def man benn doom rek laa am bëgg mu baax. ndeysaan. loolu la papaam gaañu ma nekk man rek. yal na nu yàlla jàppale nekk jigéen. yal na nu yàlla na nu yàlla yal na nu yàlla jàppale ba. li ñuy wax yëpp man dégguma ko man mm. daal xam naa. Mm. sunu avenir doom yi war nañ ci taxaw. ndeysaan wax na dëgg ah, état aussi am na ci wàll. centre de formation bu dee menuiserie baax na bu dee mm. maçon baax na lu mënti doon baax na. xale nañ nekk ci dara rek. yàqu hmm. ci dara bu ëllëgee ñu yore seen bopp lu am solo la yaay booy li nga wax ni lu am solo la te yaakaar naa na ñëpp laa waaw ñëpp ko dégg de ñëpp a ko dégg état dégg na ko bonne volonté dégg nañ ko yàlla baax na li nga wax ni lu am solo la wax dëgg yàlla parce que âge boobu âge bu garaaw la douze ans moom dafa garaaw dafa doy waar dañuy dëgër bopp doo leen mën a dara nga nekk jigéen yow rek ci kër bu nekk ni kër gi ngeen nii xale yëpp liggéey nañ kenn du yéen kii góor ñi liggéey nañ man ak sama yaay rek ñoo fi ne waaw ah, loolu na doo am leen di yar mënaloo leen dara waaw xam naa bu baax li ngay wax yaay booy yàlla xam naa dem doo xam fuñ dem bu heure añ jotee ñu ñëw añ demaat demaat te doo xam fuñ jëm sa xel doo xam fu ñuy nekk sa fit dal billaay dëgg la doo xam koo koy wax ñi koy dund bari nañu ci réew mi waaw su ëllëgee nag problème am bandi yu bëri ñu naan xale xale fekk yow mënoo ci dara fekk def nga lu ne waaw ñu ne ñu ne yaay jëla fekk yaay jëla ci lenn laay dëgg la gis nga lu am solo la yaay booy maa ngi nii sama liggéey kër dara pareegul ndékki sax mi ngi nii dëkkeegu ma defagu ma dara sàmbale maa ngi toog déglu émission bi sama xol tooy ma ne xaar ma oote xoolama loolu xoolama loolu yal na ni yàlla fay yiw yal na ni yàlla yaral sa doom incha allah amin inshallah yaakaar naa aussi loolu loolu tam lu jar ñaan la yal na la yàlla yaral yéen tamit yal na la yàlla jàppal yéen soxna yi alaaji Assane Gueye ñoom hmm. ñëpp dama leen di déglu ndeysaan dëgg la ak ñoom ñëpp daal ñëpp daal su ma limee damay juy yal na yàlla jàppal yaay booy taxawul bu baax baax ba doo am benn désespoir ci sa doom bu soobee amin amin jërëjëf Abdou Thiam yaa ngi dégg ndeysaan bëri na ci ay morom nag ñoo xam ne dañu yeewu jaaxle duñu xam fu ñu yóbbu seen doom yi nekk ci mbedd yi kon bon euh, lancé na benn appel à l'endroit du pouvoir nguur gi na ci taxaw jàppale leen ñu ubbi ay formation professionnelle ak yeneen lu am solo la de gis nga de soxna yi macha allah ñu jeexalee kenn asalaamaaleykum. allo waaleykum salaam ñu ngi lay bi yaa mujjee mu gën a gàtt nga bisimilah. kon dama waaw bisimilah. El maa ngi alhamdulilah. naka yaram bi. jërëjëf macha allah alhamdulilah ñoo leen di jaay leen baal àq leen baal àq. jërëjëf ñu bokk lépp. ci weeru tedd bi ñu génn. jërëjëf. di ñaan lépp lu ci jaamu yàlla yàlla na ko yàlla wasaare ci àdduna bi. amiin ñu bokk lépp. ah soxna si loolu nga ko wax moom ñu ko ci masawu waaye nag moom doom moom wax dëgg yàlla waajuroo ko yaral boppam moom. Mhm, mhm. kenn amul sañ ci jël doomi jaamu di ko yóbbu fenn fu ñu ay waajuram. Mhm. dafa ci ñu dëkk ci dëkk ba jàppale jëlal ko doom ji jàppale ko. métti na trop yooyu. Eh, eh, sëñ parce que li nii wóor na yàlla yent bi dafa dafa bëri ñu koy dund. dafa bëri ma wax naa léegi léegi dafa bari ñu koy dund léegi maa ngi wax nii léegi boo gisee li tax may gën a dafa am benn fondation deux cent vingt et un. Mm-hmm. ci kor gi dañoo jël ay ginaar dugg ci képp ak ci profil ci sañcaan yooyu di leen dimbale. Mm-hmm. te loolu boo fa demee séeram day daw daal. vraiment mm-hmm. te loolu dafa am solo. dimbale dafa am solo. li ci des li may wax toujours Seydou Nourou. Hmm. ñun amuñu lu dul Mbacke démb heure bii démb ñu ngi président dalal na département bu Mbacke ci rajo bi laa ko doon jooye. Hmm. ba mu dalal hmm. li mu wax it ñu ci ñaan yàlla Sadio. bi mu wax ak Mbacke bool sapeur pompier gendarmerie police. hôpital bu baax yàlla na ko yàlla kattanal ba mu am ko. lii mhm. mooy wane ni waa ma ne mooy wane ne ñi fi nekk mhm. deful woon askan yi président moom ko ñaanal bu baax a baax jàppale ko ñu naan tubaab dañoo xis ñoom seen waa kër moo xis <laughs> koor gi ba koor gi neex ndawal ak ginaar dong lañ doon lekk ak boisson barke Serigne Touba ndawal ak <laughs> ginaar ak <laughs> boisson lekk moom moo xiif ak waa këram na na yer ay kàddoom te xam ne moom moo xiif ci mbokkam. non kàddu moom xiifuñu yàlla bu di sant Serigne Touba dara ñàkkuñu ko dara ñàkkuñu ko moom moo ak seen waa ak njabootam <laughs> jërëjëf Touba waa ñun ñu ngi ko jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf am jam dégg nga dégg nga kon mu ngoog mu nekkoon kàddu askan euh, ci penco Seydou Nourou Ba moo nekkoon ci micro bi Abdou Thiam mu nekkoon ci machine bi Yacine Pouy moo fare moon ci digital ba salaamaaleykum